rafet na lool mu ñëw moom itam fas koloreem ak fi nga xamante ni euh, ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk waar wi euh, muy waa daayira mu xadimatul xidma sëñ Modou Diop yaa ngi en direct ci MKTV ci télé bi nga xamante ni mooy tele bu jumaa ji lan ngay wax ci kolore googu nga xam ne am nga ko daara wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi sawi raddiwaan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki teel yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu suñu jëwrin ji ñu fekk fii te koy jaarale ci nuyoo bi suñu yaakaar ji mun Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Basir suñu borom gën ko yàggal te kàttanal ko te wéral ko di ko ñaanal mbooleem muqaddimatul xidma gépp seen jëwrin tàmbalee ci Serigne Xaafiya di ñaan suñu borom mu gën ko waaye falal liggéey bi ak ñi ko àndal ñëpp ba lépp sotti di am bu baax a baax a baax ci teew gi ñu teew te loolu lépp waral ci ñoom ndax ku ne xam ne ne liggéey bépp benn la te moo jëmmi Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne si ne moom la ñuy dàkk saa su nekk te sëriñ bi nekk koo xam ne mu ne su koo séddoo mu ne su koo jël yóbbu dañ koy bokk rek te di ko rafetal lool it gis nañ ci mu Moukhaddamatoul ma taxaw ci taxawaay bu am solo saa yu nekk ñu koy gis ci ñoom te mooy gën ñoo yaatal gën ñoo gunge gën ñoo woon aw yoon donte ñun ay ndaw lañ ci biir liggéey bi kon day mel ne liggéey bi du ñaar benn la euh, ndax biñ fi ñëwee ñoom lañ fi fekk te ku ne xam na ne ku tudd jumaa ji rek sa xel dem ci ñoom te loolu li ko waral mooy seen itte ak seen pas-pas ak euh, seen njàmbaar goo xam ne wane nañ ko ak xereñte goo xam ne si ne saa yu nekk ñu ngi koy gis ci liggéey bi rawatina weeru koor wi saa yu ñëwee rek xel yëpp dem ci jumaa ji te jumaa ji ku ci dem it li ma wax léegi sa xel dem ci Muxaddamatul Xidma ngir lu am solo liñ fiy def nga li nga xam ne si ne mooy jëmmi jumaa ji taxaw gi nga xam ne si ne war na jullit ñëpp te ñu taxawal ko cant googu rek kenn mënu leen ko sant rawatina weeru koor tuyaaba ji ci nekk ah, ak xéewal gi ci nekk nga xam ne benn jullit rek nga jox ko mu dog kenn xamul tuyaabaam nga def ko ay junniy junniy junniy nit te loolu lépp yàlla rek tax ak jëmmi Sëñ Tuubaa waaye nag Sëñ Tuubaa moom la kenn xamul mooy lan kon lépp rek dañ koy delloo ci Sëñ tey am mbégte tey sant bu baax a baax a baax a baax a baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yam ndax lii euh, du ren du daaw diirub liggéey bi sosoo ba léegi nii leen koy àndee te lépp rafet lépp rafet diirub liggéey bi tàmbalee ba léegi nii leen koy àndee saa yu koor jotee ñu wooñu ànd ak ñun lu du loolu it ñuy ànd ak ñoom ci ay waxtaan rawatina su nekkee ci biir euh, liggéey bu mag boobu muy taxawaayu màggal gi ànd ak ñoom ci lépp ba lépp jeex kon loolu wane na ne li ma wax léegi rek ñaari liggéey amut benn am te loolu lépp li muy wane mooy jëmmi Sëriñ Tuubaa ji ma waxoon ne mënuñu koo séddoo kenn mënu koo yóbbu doon koy bokk loolu saa yu nekk ñu koy gis ñu koy firndeel ba pare di ñu gën a gunge ci liggéey bi nekk liggéey bi nekkit nekkuñu ci ñun ñoom lañ ci nekkal waaw ndax bu nee mu xadimatul xidma moom jumaa ji la bu nee xidmatul xadim muy jumaa ji te day mel ne kon xidmatul xadim day doom ci muxaddamatul xidma loolu nag mooy liggéey bu nangu loo xam ne si ne saa yu nekk day yokk te ak wàññi ko amu ci loolu mooy jëmmi suñ Tuubaa ji kon am nañ mbégte daal ci ànd gi ñu ànd eh, di leen xamal ne it ci suñ kàddu bopp ak kàddu mbooloo mépp am nañ cant goo xam ne su ngeen ñu gisee ak su ngeen ñu gisut su ngeen ñu déggee ak su ngeen ñu déggut eh, ñi ngi ñi ngi leen koy ameel ndax bokk na ci liñ gën a bëgg mooy ku ñu waggaral ku tedd gi mooy Seexul Xaddim te loolu ci ngeen di xëy ci ngeen di gont loolu nag loo ko defar nga toog fa nga toog amalu du sant ko kon sant nañ leen baax ci turu mbooleem daayira bi ñëpp di tàllalaat loxo yi ci yéen xam ne duñ benn lépp lu mu doon rek su dee lu ñu war a def rek noppi nañ ci su dee lu ngeen ñu war a def loo it noppi nañ ci ngir Sëñ rek la ñuy wër te fu ko gisee it alhamdulilahi laa alamin kon ñu ngi sant ñu gërëm di ñaan ni ñu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu àggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te sun yaakaar ji Cheikh Mouhamadul Mountakha sun borom gën koo dolli kattan ak wér ak man-man ba li mu bëgg ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi lépp sotti ak mbooleem njabootu Cheikhul Khadim gépp ak mbooleem ñun taalibe bi yëpp ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax euh, bëggoon na nit ñi gën xaw a gën a bari waaye koor moo xat daanaka yu bëree bari euh, kon moo tax daanaka mu demee nii waaye daana fi ëpp waaye ñuy sant rek di sant ñëpp rawatina suñ jëwriñ ji ñu àndal suñ fàllu di ko sant bu baax ci ab taxawaayam di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Maodo kaddu yu rafet na dégg nañ ko jàpp nañ ko te itam dinañ ko gën a wéyale ak ñun yéen incha allah dinañ leen ci gën a yaatal gën a jàpp coloré bu baax baax teel leen ko ba lépp loo xamante ni mu ngi koy jëmale kanam rek incha allah ñu def ko ci ci jëmm sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba incha allah jaa ngi jëf salaamaaleykum wa rahmatullah